nit su la bëggee da lay motiver si lu baax nit su la bëggee dangay wax dëgg ñu bëri ci sénégalais yi ñu ngi jël gaal gi ni dañuy dem Espagne te seen frère yi ñoo leen ko yóbbee da ngay gis Modou Baye Mbay wala Moussa boo xamante jëloon na gaal gi jëm Espagne eggul te mënatul dellu si mi ngi Maroc Tunisie wala Libye dafa dund dund goo xamante ni la mu doon dund Sénégal sax moo ko gën mais egg na Maroc te mënatul dellu si Sénégal mu des Maroc di gëmloo frère am yi nekk fi ni leen fa muy dund mu ngi fay dund àjjana boo rombee oto bu rafet fa taw boo gisee kër jàmbur bu rafet taxaw fa fa taw yëmbal Grand Dakar Pikine xuru naar wala caaray ni ko xee booy yow li ngay dund dund man li may dund ko gën aha loolu boo ko waxee ndaw koo xamante ne xelam tolloogul fenn mënagul xalaat xalaat bi mag mën a xalaat boo ko waxee motivé nga ko pour mu jël gaal gi booy jëlal gaal gi ku la ko wax bëggu la booy jaaral ci tefes gi ku la ko wax bëggu la aha Sénégal neex na ku la ko wax dalay nax Sénégal neexul parce que ndagam ñi fi am tuuti ñooy jàmbat neex neexul naqadi naqadu Sénégal waxuma laak ñun ñi nga xamante ne Sénégalais lam daa dong lañu ñun ñi nga xamante ne suñu añ sax wóoru waxuma laak suñu ndekki suba ñun ñi nga xamante ne dañuy daaba daaba dong ñun suñu bopp ñun ñoo gën a xam méttitu Sénégal donc duñu wax kenn toogal ñun kay li ñuy wax mooy ku bëgg tukki na nga tukki ci yoon bu leer ku bëgg dem na nga dem ci yoon bu gën aha Modou Mbaye Moussa Pape wala Alaaji ma nekk ma France Italie Espagne wala États-Unis gënuñu la ñoom bu ñu demee mën ngaa dem ñoom bu ñu eggee mën ngaa egg waaye da nga waa teg sa deb boobu ci yoon bi nga ko teg ñoom ba egg mooy lan mooy wuti passeport dem ci ambassade yi jël fa ay renseignement ku jël fa ay këyit yoo xamante ni xool lan mooy tax ba nga egg si seen dëkk yooyu ci yoon bu leer mais moom frère bu la Europe jaral jël sa bakkan bii teg ko ci ay gaal aha ndax danga am jabar am waajur papa yaay ak doom yoo xam te ni boo loroo ci gaal gi ñoom amaana seen dund dootul neex abadan donc képp kuy jël gaal gi war nga xalaat sa mbokk yi nga fi bàyyi képp kuy jël gaal gi war nga xalaat sa njaboot képp kuy jël gaal gi war nga xam ne yow kat yaa ngi dem di tànte loo xamante ni ay nit doog ngay teg coono ay nit doog ngay teg naqar te nit nag bu la bëggee du la teg naqar nit bu la bëggee du la teg ay jooy boo bëggee sa yaay waloo yëg ci gaal yi ndax xam nga ne bis boo fa desee sa yaay moom dundam jeex na boo bëggee sa soxna ak say jabar waroo yëg ci gaal gi parce que xam nga ni bis boo fa desee ñooñu dinañu jooy seen giiru dund frères et sœurs bu leen déglu ñu leen di nax frères et sœurs neex na waaye am na ñu fay dund dund boo xamante ne toogoon Sénégal ko gën frères et sœurs moytu leen réseaux yi tout ce qu'on vous montre n'est pas vrai am na koo xamante ni Maroc kii la toog oto bu rafet bu mu romb dina ko dina fa taxaw fa kër gu rafet bu mu romb dina fa taxaw fa taw jël ko dugal ko ci réseaux sociaux yi naan leen fa mu nekk neex na bu ko defee yow nga takkale ko sa sago yow mi nga xamante ni yaa ngi Pikine xóoru naar Géejawaay Caaroy ak Grand Yoff dundatuloo nelawatuloo lekkatuloo naanuloo jël gaal gi dong ngay gis dem ndax lan ndax moodu moomu dala doon nax ni la mi ngi mi ngi ci dund àjjana te moodu kat Maroc gii la nekk dafa dem ba Sénégal ñu bëri dañoo foog ni sax Maroc Europe la nekk ta Maroc ci Afrique gii la bokk lu Sénégal lu Maroc mën rek Sénégal war na koo mën looy def Maroc ba tekki rek boo toogee Sénégal def ko fi mën nga mën mën ngaa tekki mën daal terewuma kenn mu dem mën daal duma wax kenn bul jéem a dem mais jéem leen dem ci dem yi gën jéem leen ngeen wut yoon boo xamante ni yoon bu leer la ngeen dem ci bu leen kenn pousse si ay gaal bu leen kenn teg oto ni leen yéegal ñu jaar yoonu suuf si dem Europe aha dund a gën neex lépp Europe neex na waaye dund a gën neex Europe dund ne dund amul lenn loo xamante ni moo nekk ci kaw dund dund la vie au-dessus de ñi nekk Europe ñi egg Europe ñi nekk Maroc Tunisie wala dëkku naar yi arrêtez de mentir vos frères bàyyi leen wax lu dëgg ñu ci bëri ci yéen dañuy fen ñu ci bëri ci yéen yéen a tax xale yi di jël gaali yi ndax bu ngeen eggee jël life de luxe bi di leen ko xoy amaana dund leen ko waaye l'apparence est souvent trompeuse boo jëlee sa benn costume takk sa cravate photo wu dugal ko ci réseaux sociaux yi gàddu sa iPhone 11 aha mbay mi nga xamante ni moom ay fukki ak juróom sax matul bu la dee xool ci réseaux sociaux yi du bëgg lu def li nga def maanaam dem donc yéen ñu bëri ci ñi jël gaal ñi nekk Europe am ngeen ci part de responsabilité si vous avez une vie de luxe yal na leen jig mais n'inventez pas une vie de luxe pour insister à ce que nos frères prennent les bateaux les gaales les pirogues je sais pas on dit les gaales quoi prend les pirogues pour venir en Europe di fi dund dund goo xamante ni amaana dee sax moo ko gënoon ndax ñi agsi bu fekkente ni gaal gi ñi ko jël téeméer yi fanweer agsi nan si juróom-ñaar fi ndox mi fanweer yi agsi seen dund googu ñu dund toogoon Sénégal moo leen ko doon gënal parce que bu dee da nga ak sa ay xarit ngeen yëg ci gaal ngay gis dee benn par benn amaana yow agsi nga de mais sa dund dootul neex ndax la vie elle est sacrée mënoo ànd ak nit bëgg ko di ko gis mu dee ñu jël ko tëmbal ko ci ndox nga agsi bëgg fi dund dund boo xamante ni moom nga doon rêvé maanaam sa rêve boobu yàqu na sa rêve boobu ga euh, c'était qu'une gâchis donc pour ne pas rentrer dans tous ces conneries-là, restez au Sénégal, essayez de voyager dans les conditions les meilleures. Frères et sœurs, c'est tout simplement pour vous dire que l'Europe n'est pas, mais La vie elle est tellement sacrée que vous ne devez pas tenter le diable pour avoir le diable. À bientôt pour d'autres vidéos. ñaata bakkan ñoo ci root ñaata yaay a dëkkee jooy ndax ñàkk kiñ daan boot ñaata góor ak ñaata jigéen ñaata mag ak ñaata ndaw ñoo dugg si gaal yi bàyyi ginnaaw seen njaboot jeunes yi dee si gaal yee ëpp jeunes yi corona rey avenir u dëkk moo di jeunes yi gis nañ tey ñàkk emploi tax jeunes yi dugg géej mujjee réer buñ leen gis buñ leen riiru dënn ngee gën a foor riiru motooru gaal gi ndax tiitaange dem naa gàddaay seeti leneen lu gën rëcc torox tànge munuma xool yaay rongoñam di walla ngaan te awma lu ma ko xerale bay di xiixat ndax coono liggéey te ba tey awma lu ma ko teerale barsak wala barsa partant mel ni ku life sàppi toog ban ci diggu géej fàkk problème yi titulaire kaaw diplôme yi sama biir sàkk du ma ñaan bëgguma doon sàkk ci neuf ak lu réel maire bi doon mag te war a dem màkk fukki sol ku ci fecaace gaare ko ni vitre tente takk jabar dagg bu mu gàcce xaru géej ma gën a dund gàcce wallaahi Sénégal a metti mënu ma toog fi aabi waral ma songu gaal yi ba fànn yi maire bi day laaj boo yorul dara doon nekk gaz bi day jeex dama yorul du ñàkk jommee ci gaal gi laa jëm xooju ba seen malaaka mooy gaal gi ma am fi boo ñàkkee ba toog fi amul tëgg yow la tam juddu ci ndóol nar ci torox paa bi leen mu jëm ak dem naa gaal bi këpp te gaal bu amaatee ma demaat rek laay gis bëgg a tekki fees si yéen te fees gi ne ku yaayam yaakaar warul dee ci géej yéen geesu leen xool leen ñaata nit a dee ci yéen bëgg a tëral yaay yaay ngi jooy rek jàkk sa ngéem géej gi amul bànkaas mais am na rab ak jinne wax jooju sax du am sens ndax xam ne ragalul leen tukki taxul tekki te bëgg a tekki terewul toog ñu taataan tàggataat tuuti xel yi taaru telewuñ ko jëleen bagage yi ñu dëpp yàlla yaana yàlla baax na yàllaa ngi fépp léppam jaam la te after loolu na yuqu ba nguur gi dégguñu ni dee ci géej gi lay jaale seen mbokk yi maa ngi jéggalu mm,